Bonjour, euh, mesdames et messieurs, Sénégalaises et Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, frères et sœurs africains, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, démocrates, républicains, militants de la bonne gouvernance, de l'état de droit et de la démocratie de par le monde, je voudrais, en ces moments graves, difficile et dangereux que vit notre nation, m'adresser au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, en vous prenant à témoin. En février-mars 2021, notre pays, le Sénégal, avait fait face à des moments troubles, difficiles, beaucoup de pertes en vies humaines, des dizaines, de nombreuses arrestations, des dégradations matérielles, des pertes en tout genre. Notre pays a été ébranlé jusque dans ses profondeurs. En ces moment là trois ministres de la République, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères étaient montés au créneau pour porter un doigt accusateur sur l'opposition sénégalaise, sur ces jeunes hommes et femmes qui étaient sortis, drapeau à la main, scandant l'hymne national, pour défendre leur, leur pays, leur république et leur État. On les avait qualifiés de forces obscures, de rebelles, de milices, de toutes sortes de qualificatifs. Sur cette base, des opposants ont été persécutés, pourchassés, humiliés, arrêtés et emprisonnés. Pendant que ces opposants, qui étaient vus ou perçus ou présentés comme les fauteurs de troubles, comme ceux qui brûlaient le Sénégal pendant qu'ils sont aujourd'hui neutralisés, c'est maintenant que le Sénégal fait face à la menace la plus grave de son histoire. Donc où se trouvent les forces obscures Où se trouvent les terroristes Où se trouvent ces rebelles qui menacent le Sénégal Je les vois du côté du palais de la République. Je les vois à l'Assemblée nationale, ceux qui ont voté cette loi unique et scélérate. Je les dans toutes les sphères dans les officines obscures du couple Benno Bokk Yaakaar Wallu PDS APR qui ont planté ce couteau dans le dos de la démocratie sénégalaise c'est pourquoi je dis président Macky Sall je l'appelle toujours président certains de mes amis me disent Cheikh Tidiane cet homme plus ton respect je leur ai répondu en leur disant il sera encore mon président jusqu'au 2 avril 2024 au-delà de cette date, il ne le sera plus. Je suis un républicain, donc je l'appellerai encore président Macky Sall jusqu'au 2 avril. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant à signer un décret qu'il sait manifestement illégal, illégitime, il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. s'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte, et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Macky Sall ne représentera plus le Sénégal à l'UMOA, ni à la CDAO, ni dans aucun sommet international, ni à l'ONU Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Macky Sall, pendant qu'il est encore temps, de faire preuve de bon sens. Il ne peut pas vaincre, il n'aura pas gain de cause. Il sera défait par le peuple sénégalais. parce qu'il ne mesure pas à sa juste valeur l'étendue de notre détermination. On peut et on est prêt à tout sacrifier pour l'honneur et la dignité de cette nation. Et on le fera. Alors il a un choix à faire ici et maintenant. Il a le choix entre une petite reculade aujourd'hui qui fera sans doute mal à tous ces turiféraires qui sont autour de lui parce qu'ils savent que leurs privilèges s'arrêteront. mais il choisira l'honneur plutôt qu'un déshonneur éternel et durable. C'est à lui de faire ce choix. la lui appartient. Je voudrais terminer mbokk yi en disant comme nii ko ñi ñii ma jiitu waxee ci leader candidat yi wax ji yàlla dafa def ñun ñoo nekk fii ay candidat ndogalu yàlla la waaye mbir mi yéen yéen a ko moom yéen peuple sénégalais mbir mi bu ñu ci taxawee di ci wax itam ci seen kaddu lañ ciy wax parce que bu ñu demoon ci élection yi képp kuy candidat sa baat lay ñëw jël si. te jamono jii ñu toll dootul jamonoy Macky Sall dootul jamonoy candidat dootul jamonoy parti politique yéen askan wi la constitution may bu ñu ci yeggee ñu delloo leen baat bi ni yéen rek a ko moom amul keneen ku ko moom ci askan bi. ngeen war a ñëw bés boobu rek ngeen am ci juróomi at yu nekk ñëw tànn ki leen doy ngeen def ko muy seen njiit loolu la leen Macky Sall xañ loolu la leen bëgg a xañ. bu ngeen jógee taxaw ci kanamam di ngeen ko gàntal te lii tax mu mën a nekk may baamtu li li sama naatangoo yi wax dégg nañu li suñu kilifa diine yi wax ca Touba dégg nañu li église catholique wax ñuy ñaan bépp kilifa diine ak këru diine bu waxagul xamal ni askan waa ngi lay xaar ci nga wax nga jël position bu leer ci contre li Macky def dégg nañu li syndicat yi wax enseignants yi li ñu wax étudiants yi li ñu wax dégg nañu li li sëriñu daara yi wax kuréel yi ci réew mi yépp te jël position dégg nañu seen position te danañu fexe ba ñu da daje ak yéen ngir ñu tabax comme ni ñu ko waxee benn mouvement bu rëy boo xam ni Sénégal rek moo ko tax a jóg su ko defee bu ñu génnee jàkkaarloog Macky Sall mu xam ni askan bi moo nekk ci kanamam. loolu la ñu ne woon nañ leen ko indil ñu fexe ba réew mi di Sénégal jànkonteeg ay jafe-jafe yu dul jeex. nekk ci sous région Afrique de l'Ouest boo xam ne bii ay jafe-jafe kese ñoo fi nekk na àddina yépp ñëw tey dimbali la peuple sénégalais pour que peuple bi bañ a nërmeelu pour que état du Sénégal baña daanu ndax bu état du Sénégal daanoo waxuma la sous région bii ñu jege mais Afrique ci boppam lu bare dana fi yàqu parce que ñooy réew bi ci des bu am stabilité féete géej gi bu ñu fexee ba mu am ay trouble ba ñu fi warul dugg dugg fi réew mi dina nekk ci guute gudul jeex mbokk yi may daaneel di wax benn pensée pour Ousmane Sonko pour Bassirou Diomaye Faye pour ñi nga xam ne jàpp nañu leen accuser leen ci lu dul dëgg tëj leen te tey lii wane na ni defuñu dara nañ leen bàyyi candidat yépp ñu ngi demander loolu solennellement ñu ñu libérer leen immédiatement ñu ñëw ànd ak ñun continuer liggéey bii nga xam ne ñoo ngi ci nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm